mbokk jullit yi ñëpp xam nañ ni xeex bi nga xamee ni moo ngi dox jamono ji suñu diggante mbokk yi nekk Filastin fële ca Gaza ak suñu noon yi nga xamee ni mooy waa Israël di yahud xeex la woo xamee ni na ci ay jamono xeex la woo xamee ni yàgg naa am xeex la boo xamee ni yàgg naa xew waaye nag xew-xewu année 2023 bii dafa wuuteeg lool xew-xew yi jiitu woon ci atum 1948 atum 1963 atum 1968 ba ci 2007 ba ci 2014 xew-xew yu mel noonu am na waaye mel ni moom kenn mos koo gis kenn mos koo teg bët ci naka ci rey gu bëri ci budu xatal gu metti ci seetaanu àdduna bi ci complicité ak ay naafeq yoo xamee ni ñii ñoo ngi nekk Amérique ñii nekk yeneen bërëb di ànd ñoom noonu l'islam boobu ñoom naafeq yooyu ànd pour nekk bu ñu xatal l'islam pour bu ñu xatal jullit nekk ci Palestine waaye ñoom nag lañ koy layee mooy xeex la bu dëgg bu dox diggante Israël ak ay terroristes loolu nag bu fekkee jullit ñi nangu nañ loolu nangu ñu yóbbu leen ci loolu nangu li ñuy wax naan diggante xeexu Israël ak ay terroristes bu fekkee jullit ñi nangu noonu nangu nañ loolu nga xam ne kon kat ñàkk fayda am na ci jullit ñi ñàkk xam an am na ci jullit ñi waaye it ñàkk li jëndi am na ci jullit ñi mbokk yi safaan bi kay lañ war a wax mooy Israël mi nga xamee ni dëkku terroriste la Israël mi nga xamee ni ay saay-saay lañu yahud yi nga xamee ni gëmuñ rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam gëmuñ lislaam bëgguñ lislaam bëgguñ kuy dund diine lislaam bañ nañu képp ku gëm lislaam képp ku nekk ci lislaam yahud bi yow lañ gën a bañ ci kaw suuf kenn ci seen premier ministre yi lu jiit muy génn àdduna nga xamee ni suñu borom wan na ko boppam lu jiit muy génn àdduna ndax dafa paralysé mënul bu fan ne ba li ñuy ci seen ministre yi dafa taxaw mu ni moom bokk na ci liy teeyal xel bi nga xam ne day tax xel mi di teey mooy bu gisee ab jullit subhanallah gisee ab jullit bu bi nee na loolu da koy wacciloo ndax loolu day teeloo xel bi kon ñoom bëgguñ ñu l'islam gi moo leen di déranger waaye du Gaza moo leen déranger du Palestine moo leen déranger du Hamas moo leen déranger lenn rek moo leen déranger mooy l'islam gi nga xamee ni moo ngi yaatu ñëpp di dugg ci biir suñu borom subhanahu wa taala di wax ci alquran mu ni la tajidanna ashadda annaasi adawa lilladina amanu alyahud yàlla saa borom nee na boo gëstoo ba gëstu boo seetee ba seet da ngay fekk ni ñi gën a bañ jullit ñi ci kaw suuf ñi gën a noonoo ak jullit ñi ci kaw suuf ñooñ ñooy ñi nga xamee ni mooy alyahud mooy ñiy xeex ak tey suñu mbokk yi nekk Palestine mooy tey ñiy bombardé Gaza mooy tey ñiy jëf jëf ju jooju ci xale yi ak ci jigéen ñi ak ci mag ñi ak ci hôpital yi ak ci école yi ak ci bërëbu dëkkuwaay yi te loolu ñu ngi ci ñëw léegi ak ay siifa bokk jullit yi nañ xam ni suñu mbokk yaa ngi daj suñu mbokk yaa ngi sonn suñu mbokk yaa ngi dee suñu mbokk yaa ngi génn àdduna te ci ñaareelu xutba gi su ma leen waxee li Israël jot a yàq diggante ba mu commencé bombardé suñu mbokk yi nekk Palestine ak léegi lim ci yàq da yéemu ci yàlla da nga naan ndax lii àdduna bi yëg na ko ndax lii àdduna bi dégg na ko lan moo tax àdduna bi mën a noppi ci lu mel nii ak lu saltee nii ak lu réer nii ak caay-caay gu mel nii lu ci àdduna bi mën a noppee ndax boo déggee chiffres yi da nga yéemu suñu borom subhaanahu wa taala bu ñëkk da daan dégg 1948 ñu naan la nag ba mos na fee am mooy musiba baggu kumba ndax ab rey gu bëri bu amoon ci 1948 ci ay jafe-jafe yu amoon ci 1948 dàq gi ñu doon dàq waa Palestine seen biir réew mi ci 1948 jàpp 63 jàpp 68 da ngay jàpp ni loolu dañ koy nettal nii waaye mosut am waaye ku dund 2023 di nga gëm lépp li ñu la waxoon 1948. Israël mii tey di bombardé suñu nekk suñu mbokk yi nekk Palestine Israël mii tey mooy yahud yi tey di xeex suñu mbokk yi nekk Gaza Israël mii tey ñu day songu Hamas pour daaril Hamas pour bombarder Hamas pour jëlee Hamas fële ci Gaza moom Israël musta am ab dëkk ci kaw suuf Israël musta am suuf ci kaw suuf Israël musta am dawla ci kaw suuf dawla naafeq la dawla complot la dawla complicité la ak ñi nga xamee ni ñooy waa Amérique وإسرائيل Israël musul am suuf إسرائيل ينرف suuf ينرف Israël بأب إتا def ba am suuf li na def ak naafeq ak caay-caay ak xet stratégie yo xamné dara lalu ci ci lool ci yoon waye nak jëppé ta kaw nangu ko jàppale ci naafeq gogou loolu mo waral tay Israël ci bu gërëm nan amna dawla nan amna doole nan amna na nan amna lu ne waye yàlla xam nañu Israël amul dara amul tous bala ko koo xam li waral ni ñum amuñ dara amuñ tous moy bisub 7 octobre bi nga xamee ne Hamas bëtt na seen frontières yi bi nga xamee ne Hamas tëb na seen kaw bi nga xamee ne Hamas bombardé na leen bi nga xamee ne Hamas dugg na ba ci seen biir dëkk def fa la te jàppul ci kenn loolu rek day war ne Israël amul doole ñoom ahwanu naas ñoo gën a doyadi ci kaw suuf ñoo gën a doyadi ci lu yàlla bi ñoo gën a doyadi ci nit ñi amul wàccuwaay amul bërëb te xeex ñu sumb nag dafa am ñu nekk seen ginnaaw waaye bu doon Israël moom dong ak diggante Hamas dong tey kenn waxatu loolu te wallahi laa waat xeex bii bu doon Israël kenn nekkoo ci ginnaaw kenn jàppale moom du sax ñimee songu xeex wi ndax suñu borom nee wala tajidannahum ahrasa annaasi ala xaya wala tajidannahum ahrasa annaasi ala xaya ñoo gën bëgg dund ci kaw suuf ñoo gëna fonk seen bakkan seen bakkan bi dund rek lañ bëgg ak lu neex waaye deewu ko ci dara kon ñoom amuñ fit amuñ fit goo xamee ni may leen ñu mën a jàmbaarloo ak Hamas waaye lenn rek moo tax ñu am fit giñ am nii mooy ñi rek seen ginnaaw naafeq yi di leen jàppale ak di leen yónnee ay arme ñuy bombardé suñu mbokk yi nekk Filastin bokk jullit taxawaay bu rëy jullit bi war na ko am ci xew-xew bi taxawaay bu rëy jullit bi war na ko am ci xew-xew na ci taxawaay boobu di ñaanal suñu mbokk yi si Filastin loolu dañ koo war a def ak ñoom loolu dañ leen dañ ko war a warloo ak ñoom di leen ñaanal ñoom pour yàlla may leen ndimbal ak yàlla musal leen ci caay-caay yu noonu bokk jullit war nañoo xool nu ñu def pour dajale lenn loo xamee ni dañ koy yóbbul suñu mbokk yi nekk fële ci Palestine fële ci Gaza ñu mën koo suturlawoo ndax situation yi nekk métti na lool bokk jullit ñëpp war nañoo taxaw def nii may def mooy lan mooy nga dénoncé wax adduna bi wax nit ñi ni leen ah naafeq yi nga xam ne mooy ñenn ci waa Amérique ak waa Israël ñoom de complot nañ bëgg fee jëlee Palestine bëgg fee jëlee Gaza mbokk jullit yi war na ci képp ku nekk ci ñun mu naqarlu xew-xew bii mu naqarlu ko ci xolom bu fekkee mën na koo naqarlu ci loxoom mu naqarlu ko ci loxoom waaye it bu fekkee mën na koo naqarlu ci beneen anam mu naqarlu ko waaye na ñëpp xam ne lii kat naqari na la lii kat neexu la même boo ci mënul dara waaye sab xol àndul di jëf ju bon gi nga xamee ni waa Israël ñoo ngi koy def suñu mbokk yi Palestine mbokk yi Israël ba commencé xeex beeg léegi lam yàq ci Gaza kenn xamul nu mu toll jafe-jafe yi nga xamee ni waa Gaza ñoo koy dund kenn xamul nu mu toll fii may wax ak yéen ñu mbokk yi nekk Gaza amuñu ndox amuñu courant mënuñoo faj dem na ba nga xamee ni am na xale yu ñàkk seen bakkan ndax ñàkk ndox ak ñàkk luñ lekk ak naan ndox mu salte moo xamee ni xam nañu baaxoo ci biir mbokk nekk ci hôpital yi mënuñoo faju la ko waral mooy lan mooy waa Israël hôpital bi gën a mag ci Gaza ñu koy wax mustashfa shifa da ko wër dugg ci biir di day gës foofu ay soldaaru Hamas ba nit ñi di ñàkk seen bakkan dem ba ci yàgg loolu yamu ci mu bombardé ay bërëb ci hôpital ab hôpital ci boppam nga xool la la fa neex ci ay bërëb te bombardé ko ña fa nekk ñàkk seen bakkan ñi ñu genn leen mënuñoo dundat ndax ay gañu gañu bokku jullit yi fi may wax ak yeen hôpital bi ma wax di mustashfa shifa ña fa génn àdduna ñàkk seen bakkan wa Israël nangu wuñu leen a bàyyi sax pour ñu genn leen man leen dañoo obligé gas ci hôpital bi lañ gas ab bammel wu reere pour mën faa ñi nga xamé ñoo ñak seen bakkan loolu fan lañ ko mos a gis fii ci kaw suuf na ba mayuñ kenn pour mu génn ci hôpital bi képp koo xamee ni yaa ngi génn hôpital bi te amoo ci ndigal waa Israël dañ lay tiire bal nga dee ñàkk sa bakkan te loolu du benn du ñaar ñoo xamee ni tiire nañ ñu bokk bi nga xam ne mooy Moustapha Chifa am na ab jaay jaayukaayu garab ba fa ne ñu koy tuddee pharmacie boo xamee ni fa lañ mën a jëlee garab yi pour faj ñi nga xamee ni ñoo am ay gaañu gaañu fa lañ mën a jëlee garab yi pour faj ñi nga xamee ni ñoo am ay jafe-jafe ci biir hôpital bi waa Israël tëj nañ ko nee nañ kenn du fa dugg te kenn du fa benn garab pour faj kenn nit ñi di ñàkk seen bakkan mbokku jullit fii maa wax yéen liñ jotoon dajale pour dimbalee ko waa Gaza ci ay lekk ak naan la ko yeboon Israël da koo bombardé pour rek bañ ko jàppale Gaza بوكو لي في ماي وخك ييب جاب لين ني شاك 10 مينيت امنا كوي نياك باكانام تي خالي ييغا خامي ني ني دك غاس مانام باما كوماسي خوت باك لين ني جاب لين ني 4 بيرسون ولا 5 بيرسون لي دي نك مان ديكا كونتي نون با وير بي ديخ مان فيك اسرائيل اريتي وول خيخ بي مي خيخ غاسا جاب لين ني شاك 10 مينيت دينا ام خالي بو خامي ني دي ген ادنا خالي بو خامي دي نياك باكانام خانا ادنا بي ييغول لول بوكو جولي في ماي وخك lépp loo xamee ni day jàppale nit pour mu mën dund moo xam courant moo xam lu mu mënta doon Israël bañ na ni du dugg fële ci Gaza Israël bañ na ni kenn du ko jàllale fële ci Gaza mbokku jullit yi tey jii ci jamono jii ci wax lii may wax ak yéen fi nga xamee ni mooy alxudus di masjidul aqsa Israël nee na kenn du fa dugg pour julli masjidul aqsa nga xamee ne jullit ñee ko moom nekk sagub jullit ñi nekk lu rëy ci jullit ñi nee nañ tey kenn du fa julli jumaa bokk jullit yi Israël démb ci guddi ay nit ñu daje ci jàkk di julli timis ñii di julli gee Israël dem bombardé jàkk ja ba ay nit ñàkk seen bakkan maanaam ñi ñàkk seen bakkan ci Gaza toll nañ ci onze mille onze mille ñi nga xamee ni nag ñoo ci dee nekk ay xale toll nañ ci quatre mille six cent trente xale yu ndaw xale yu ndaw yoo xamee ne defuñ dara amaguñ sax ay bàkkaar ba yàlla di leen bugal ñoom ñoom nee ñoom ñooy bugal xale yi rek ñoom quatre mille trois cent wala quatre mille six cent trente personnes ñi nga xamee ne ay jigéen lañ xeexuñ xeexaale wuñ seen yoon nekku ci xeex bi ren ci doon toll trois mille cent trente ci ay jigéen jigen jo xam ne nii tiiriwul xeexul deful dara nga jël bakkanam 678 ci ay mag ay mag yo xam ni nii mënaluñ seen bop dara bay xeex wa Israël bombardé nañ leen ray nañ leen bokku gi ci fi ma wax ak yéen ñi nga xam ni ñoo ganu nga xam ni dañoo dañoo am ay gaañu gaañu ci loxo ñi seen tànk dag ñi seen loxo dag toll na ci 27500 personnes vingt-sept mille cinq cent personnes yoo xamee ni ñoom dañoo am ay gaañu gaañu mbokk jullit fi may wax ak yéen lu toll ci mil cinq cent ci ay xale ñoo ngi ci suufu bâtiment yi ñoo ngi ci taxtal anqaab bâtiment yi nga xamee ni waa Israël dañ koo bombardé xale yi ñoo ngi ci suuf lu ëpp ci cent xale ñoo ngi ci suuf di ko foofu ay coona ñii ñàkk nañ seen bakkan ñii amuñ ku leen génn mbokk jullit lu tolloog 137 ci ay bërëb yoo xam ne bërëbu kay la fim mu toll kenn mënu fa fajo ndax yi wa Israël bombardé nañ ko yi wa Israël ñu fa taxaw ak seeni zar genre commande kenn fu kenn fa dugg yi wa Israël nee kenn fa fajo 137 ci ay bërëbu kay li moy xew-xew wi nga xamee ni moo ngi xew fële ci Gaza suñu mbokk ñu nekk Gaza diko dundu suñu mbokk yi nekk Palestine diko dundu ta te bi neen xamuñ ci dara. يجون تدرى دنت واحد درى كابي دال ديجنت إسرائيل أي تورينس ألا لعنة الله عليهم أجمعين ألا لعنة الله عليهم أجمعين يلا يلا ربو وإسرائيل ربو كبكو أنك نيوم تخيح بي كلني جابلي كلني دمبلي كو كونتان تخيح بي كو جي واجه كونتان كو سخول سد كو سخول دي واجه سد تخيح بي يلا يلا ربو له يلا يلا ألك له yal na yàlla tàqale leen ci tàqale yu gën a bon ci tàqatle yi lii ñu def ci Gaza nag ñépp teg ci seen bët bàyyiwuñu hôpital mustasfa al awda mustasfa al mahamadaani mustasfa shifa yii yëpp ak mustasfa al indus yi yii yëpp ay hôpital yu yu yéeme la woon ci faj waaye fi mu toll nii pour ñu faj ku tànkam dagg wala ku fa am gaañuwaay pour ñu faj la sax jafe-jafe la ndax lan ndax jëfub Israël gu bon bërëb yi ñu fa song bërëb yi ñu fa bombardé kenn xamul nu mu toll waa lii yëpp ñu ni waa àdduna bi dañ ciy noppi te kenn du ci wax ku ci wax ñu la doy na lu tax muy doy tooñ gi bu fekkente nii doyagul naa fekk gi arrêté gul bombardé bi mooy continuer waa wax ji nu muy doyee nu ñuy arrêté wax ji balaa wax jee arrêté daa fekk xeex bi arrêté bu xeex bi arrêté wul. wax ji du arrêté te yàlla xam na ni képp koo xamee ni yaa ngi lu mel nii nangu woo cee wax nangu woo cee jëf nangu woo ko naqarlu nga di su yoon ci ëllëg sa bàmmeel da ko yëg da ko sentir te di nga taxaw layoo ko ak suñu borom subhanahu wa taala ana dëkk yi nga xam ne naan ay dëkk lislaam lañ yii ñu leen tuddee ay dëkk arab arab boo xamee ni mënta dugal mbuusu ndox ci ci Gaza dëkk di da am arme di woote woon da ngaa jàmbaar di woote woon yow dëkk bu rëy nga da ngaa am man la mbuusu ndox mbuusu mënoo ko dugal ci xasa wala loolu du fu la ñàkk fay dañu ne kenn du ko paquet du biscuit dugal fële ci Gaza te waa Gaza soxla ñu soxla pétrole soxla essence soxla gaz kenn mënul fexe ba dugal ko ci Gaza ñu soxla ay armes yu xeexee kenn mënut a fexe ba dugal ci Gaza ñu bàyyi Hamas mu wéet ci xeex bi waa ñu ne lii kenn du ko wax naa fekk googu ñun nekkuñu ci te ku ñu ciy xaar di ñu yéex a gis des na ko wax des na ko dénoncé ba àdduna bi xam ni Israël ak naafeq yañ àndal ñoo ngi yàq Gaza ñoo ngi lor suñu mbokk yi nekk Gaza ñoo ngi lor mbokk julit yi nekk ci Gaza xoola ñun la chaque dix minutes am na xale bu dee chaque dix minutes am na xale bu dee loolu dara na koo gën a rëy loolu mbir gënu koo rëy ci kaw suuf mbokk julit yi dañuy naqarlu mbir mi dañuy ñaanal suñu mbokk yi nekk foofu nañ taxaw suñu mbokk yi nekk foofu wa illaa wa illaa wa illaa wa illaa te yasaluna rabbu an zalik te yasaluna rabbu an zalik ittaqu llah ibadallah nañ dolliwaat suñu ragal yàlla nañu naqaru la fa ne nañ ko jooytu nañ ko wax ba ñëpp xam ko wa illaa buñ ko deful la danañ ko leer ak suñu borom subhanahu wa taala bu ko nit ñi xamul ëllëg danañ amel àqam génération bii ñëwaat après ndax duñ xam la xew ndax waa Israël ci wax wax lu amul lañ dëkk waa Hamas dañoo nekk ci hôpital yi seen ngàndaay moom ci hôpital ñun jàpp ci waa Israël dañu leen denc ci hôpital yi nee nañ loolu moo tax ñu song hôpital yi waaye bu ñu ko leeralul ku koy leer loolu ay fen la loolu du dëgg de ay dëgg la du dëgg de loolu ay ay ay la wérul waaye pour bëgg rey nit ñi bëgg rey xale yi bëgg mbonte lii rek moo waral ñu ni hôpital yi dafa am ay armes hôpital yi waa Hamas ak Fane mbokk yi waa Israël dañ leen di xamal ni xeex bi seen diggante la ak Hamas seen diggante la ak jullit ñëpp bu fekkee am nañ fit li ñuy wax dëgg la ci ñoom nañ dem fekk Hamas fan ne ñu xeex ak moom ñu bàyyi xale yi nañ dem ci àll bi xeex ak Hamas ñoom bu ñu demee ci àll bi Hamas duna leen bombardé seen i seen i mbir ak seen i jumtukaay ñu fay ko ci xale yi wala du ñàkk ful ñàkk fula la kay du ñàkk fay la. ñàkk fayda kay du ñàkk xorom ñàkk xorom la kay nga dem ci àll bi ñu xaw laa rey fay ko ci ay xale ñoo ngi ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala moom mi nga xamee ni moo am moo man moo sañ moo ëpp doole moo ëpp kàttan moo mën a jàppale suñu mbokk yi nekk Palestine yàlla yàlla nga leen jàppale suñu borom ñoo ngi lay ñaan suñu mbokk yi nekk Palestine yoo xam noonu mhm, yoo xam noonu ñoo ngi jànkoonte ak ay coono ñoo ngi dee ñoo ngi ñàkk seen bakkan amul ñu fajoo amul ku leen jàppale yow yàlla yow mi nga xamee ni yaa dem ba xam ni waa Gaza mar nañ yàlla dafa dem ba xam ni waa Gaza mar nañ mu wàcceel leen taw keroog barki dem. man dem ba xam ni. wala xas sa mar nag yàlla wàccul leen taw xale yi naan ba màndi mu diwaat taw bi su borom mu yem yàlla fii la toll ci mbir moo tax ñaan yi buñ ko xeeb nañuy ñaanal suñ mbokk yi nekk xas daan lan moo ñu leer ni taw bi taw bi bi yàlla wàcce lool xas sa li ñu leer ni nekkul ñaan yi ko andi mën naa am ñaan yi la ñu gën a ñaan gën a pour yàlla jàppale suñu mbokk yi Palestine